waroo dugg yóbbu dimbal ah Sénégal doy na waar léegi de man de jaaxle naa. gannaaw boo xam doy waar wax nañ ni dañ koy arrêté mën nañoo xam fan lañ koy yóbbu. prison bi li koy prison Tambacounda dañ ko doon tëj ba le 30 cest à affaire bi doy na waar loolu ah. ci yoon dafa ni bu fekkee ni dañ laa jàpp da nga am présomption d'innocence déjà mënuñ mënuñ mënuñ firnde ni li koy li koy waxal dëgg la moom indi na clé. def ci lépp lu war a ne mboom li koy waxal dara amu ci mais loolu intéressé wu leen leen intéressé mooy téye ko rek par force mu tëdd par force loolu nag lu waar la d'ailleurs gis naa tey Amnesty International euh, Seydi Gassama gis naa forum du justiciable Babacar Ba gis naa Birahim Seck ñëpp ñu yëngatu ci droit de l'homme nee nañ dañ ko war a bàyyi sénégalais yëpp yi bëgg jàmm te am xel nee nañ ko bàyyi mais léegi xëy na Sénégal bi dafa nekk Sénégal bu bees ak doxin bu bees doo ko jóg di dem di dimbali ay nit prison mooy sa place. Euh, après quelques heures d'attente après son arrivée le président Bougane Gueye Dany vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Tambacounda. Et son jugement est prévu le 30 octobre à l'audience des flagrants délits. Il sera jugé le 30 et nous avons bon espoir parce qu'on lui reproche maintenant trois infractions parce qu'on a ajouté une dernière infraction. La première infraction, c'est le refus d'obtempérer qui n'existe pas. On nous dit que le président devait passer par la même route et que Bougar Gaydani a refusé de céder le passage au cortège présidentiel, ce qui est archi faux. Les délits de rébellion, c'est Bougar Gaydani lui-même qui s'est rendu aux forces de l'ordre pour aux gendarmes arrêtez-moi. Donc il pas y avoir de rébellion. Et on vient d'ajouter, au moment donc de l'inculpation, on vient d'ajouter le délit d'outrage à agent de la force publique. Quel agent Qui a-t-il outragé Je crois que on l'a chargé pour l'envoyer en prison et c'est clair. Maintenant, nous savons que le procureur de la République n'est pas celui qui va juger, mais celui le, celui, celui le maître des poursuites. Et il peut mettre, donc quelqu'un qui est poursuivi, il peut le mettre en prison en attendant le jugement. Mais nous sommes optimistes. Parce que le juge qui va juger M. Bougan Gaïdani, c'est un juge indépendant, contrairement au procureur de la République, qui, comme vous le savez, dépend de la chancellerie, donc du ministère de la Justice, qui lui-même dépend de la primature et de la présidence de la République. Donc, le procureur est moins indépendant que le juge qui va juger le trente Bougane Gueye Dany. Et comme il n'y a aucun élément sur lequel on peut se fonder pour condamner Bougane nous sommes optimistes. Nous attendons sa libération le trente pour pouvoir battre campagne. On va l'empêcher certainement de battre campagne euh, pendant les premiers jours, mais il va peut-être rejoindre les troupes, mais tout le Sénégal déjà est solidaire. Tout le Sénégal soutient Bougane. Et donc on n'a absolument rien à euh, craindre. Euh, je crois que même sa campagne électorale euh, a été, euh, disons, par, cette arrestation. Déjà Bougane fait l'actualité et on sait que on, lui en veut avec son type tank et qui fait très mal, mais Bougane va continuer parce que c'est un combattant, c'est un lion. Vous pouvez nous faire confiance. Le 30, Inch'Allah, rendez-vous ici au tribunal Tambacounda pour la grande victoire de Bougane Gueye Dany. Inch'Allah. Euh, Monsieur Bokoum, votre première réaction en tant que responsable politique euh, voilà, de, de votre coalition Samm Sa Kàddu Sur le plan de la euh, d'abord, vous avez tous la preuve que c'est un dossier politique. Cette preuve, vous l'avez aujourd'hui dans ce tribunal. Vous avez vu des jeunes ont été mobilisés pour scander le nom de leur leader. Ils ont même amené des tam-tams. ce qui montre clairement qu'ils sont en train de troubler l'ordre public. Et ils l'ont fait devant les forces de l'ordre. Ils ont troublé l'ordre public devant les forces de l'ordre. Vous avez tous vu. Est-ce qu'ils ont des amis ici Est-ce que l'un d'entre eux est emprisonné Non. Ils viennent juste pour montrer que c'est un dossier politique. Donc je le dis ici et je le répète, Samoussa Kadou va continuer le combat. Bougane Gueye Dany n'a absolument rien fait. On était ensemble. On a vu ce qui s'est passé. C'est une injustice flagrante. C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener contre la coalition Samm Sa Kaddu. C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener contre Bougane Gueye qui est un opposant assumé. C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener en utilisant les pouvoirs régaliens de l'État. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons nous concerter, bien entendu, dans le cadre Sàmm Sa Kàddu et nous aviserons le moment venu li ma bëgg a wax mooy gis ngeen ne luy wane ne lii pour mbirum politique la lenn rek la mooy gis ngeen ñoom ñëpp dañoo mobiliser tey di scander seen turu leader indi ay tam-tam di ko tëgg fii si tribunal bi loolu mooy trouble à l'ordre public te gis ngeen ñi def ko ci kanamu force de l'ordre yi dañ leen a waroon arrêté ils no l'ont pas ngeen gis verdict bu ñu génnee lii bettuñu trop parce que li ko ñu visé xam nañ ko mooy Bougane Gueye Dany nga xam ne c'est un opposant assumé dañ bañ réew mi ñi ñu joxe seen point de vue dañ bañ ñi ñu réew mi ñu assumé ne ànduñu ak pouvoir bi loolu ñu bëgg ko ñu bañ ko dinañ continuer de assumer notre opposition ñu bëgg ko ñu bañ ko dinañ continuer de faire face à ce régime là lii lu ñu visé c'est la coalition également lu ñu visé mooy la coalition Sàmm Sa Kàddu parce que gis nañu ñu ngi commencé ragal loolu bu baax a baax a baax ñu ngi ñuy sóor te nag lu ñu leen bëgg a wax mooy ce combat politique la dinañ ko mëne parce que ñun du ñu toog ñu ñuy massacrer du ñu toog ñu ñuy tëj du ñu toog ñuy def lu leen neex si dëkk boo xam ne dëkku liberté la dëkku démocratie la damay wax mu leer man ak Bougane Gueye Dany ñoo bokkoon benn oto moo doon dawal ma nekk si côté bi li xew yëpp fekkee nañ ko il n'a rien fait de mal aujourd'hui ñu ngi koy teg loo xamante ne ñu ko teg benn doomu aadama parce que sa mbokk si nekkee si jafe-jafe war nga mën a jug dem dimbale ko te loolu la bëggoon def donc tey li am fii ñu ngi koy naqarlu ñu ngi koy mettitlu dinañ concerté wu au niveau de sàmm sa kaddu incha allah dinañ ñëwaat wax ak yéen si loo xamante ne moo moo concerné dossier bi je vous remercie. voilà mi ngi mi ngi noonu mu nekkoon kàddu euh, député Thierno Bocoum. Euh, ki nga xamante ne moom mooy ñëwaat na si léegi mais li nga xamante ne mu ngeen